ndax euh, yàggul dara aussi coopération allemande woo nañ ko mu dem def fa témoignage boo xam ne vraiment euh, feedback yi si am mbégte la te dina ibbi porte yoo xamante ni couturiers yi ak couturières yi dina leen ubbil ay bunt yoo xamante ne dina gën a développé seen liggéey euh, ndax man mi koy encadré de ma woon sax mais moo demoon moo waxaloon boppam ñooñu tamit vérifier parce que comme ñom déjà ñom ñep ñu ci base de données coopération allemande euh, aussi li ñuy wax yépp c'est vérifié ndax bu ñu defee ay formation dañu am ay diplôme bu ñu participer euh, fois dañu am ay diplôme euh, bu ñuy def manifestation tamit ñom dañuy téw kon day am des preuves à l'appui te boo ubbee euh, site coopération allemande sax ñoom dañoo def seeni photo def seeni contact def liñ leen defal yi kon def naa yooyu aussi ay yu fés la yoo xam ne mën nañ ko cité mën nañ ko cité am na aussi yeneen femmes yoo xamante ni ñu ngi si même domaine boobu pour wane ni rek ni chambre de commerce après encadrement bi ñuy def ak jigéen ñi rafet na trop te jigéen ñi seen implication moo ko waral

am na ñoo xamante ni inscrit ñoom ñëpp nag leen gërëm ndax seen initiative bi dafa rafet parce que Thiès li la soxla parce que bien beau ngay liggéey mais journée de la femme ko moom dañ ko war a wax ci wane suñu bopp ñëpp gis ko xam ko ah. tamit mu nekk une fierté ñun jigéen Thiès yëpp ñu kontaan ci leen sargal maa ngi leen sargal vraiment di ñaan tamit initiative bi perpétué chaque année tamit ñu di ko defaat muy gën a baax gën a neex euh, gën a nekk loo xam ne couverture bi doon